الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا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 والشمس وضحاها والخمر, والقمر إذا تلاها والنهير إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وذكر اسم ربه وقد قاب من دساها كذبت زمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده أكبر الله أكبر السلام عليكم وآل الإمداد الحي القيوم الهادي إلى سبيل الرشاد المبدع المعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله أكبر من كل تكبير وهو الحكيم القدير أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أنه ربي ورب السماوات والأرض ورب العدل ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم رفيع الدرجات ذو العرش وإن من شيء إلا يسبح بحمده وما يعقلها إلا العالمون وفوق كل ذي علم عليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا أكبر وليا ما عمل وأدر ما عمل وزينة ما علم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مماثل ولا معاند شهادة تكسب إلى على مراتب الإيمان وتنجيه من أهوال النيران وتسكنه على فرادس الجنان والصلاة والسلام على مجمع الشأن والسر حكمته والنور خلقه وعين عيني التالي المثاني بالصفات الحقية والخلقية سيد الكون الإنس والجن عين رحمة ربانية البشير النذير خادم الحضرة القدسية الموحد له مطلق التقرير سيدنا محمد الفاتح الخاتم من النبوة والولاية والتجليات في غيب المدبر العالم ورضوان من الله العزيز الغفار الناصري بالحق في عالم الغيب والشهادة صديقي صديقي عالمين بالشريعة وتكاليفه المجاهدين في الله أحسن مجاهدة الله أكبر من كل تكبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا عباد الله أي جام يالي فاستمعوا دجلين وأنصتوا ستنتلين رعاكم الله يلا سامولين يلا ولتعلموا ان ولتعلموا تنين خم ان خالقكم اجي بند سين ما خلقكم بند لين عبزا غير فونت يالا بند كين غير فونت وانا تي القران نينا فحسبتم انما خلقناكم عبزا وانكم الينا ترجعون وانا تي القران ني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني انما خلقناك بندنا الانس الجن الجن والانس والانس نيت للعباده غير جام غير ني جامكو fa jëddidu weesal leen imaan ak gëm yàlla ngeen beesal seen gëm yàlla ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne dee leen beesal seen gëm yàlla ci wax laa ilaha illallah muhammad laa ñun ñëpp dañ ko wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah watlubu ngeen sàkku ziyaadatahu dooleeku bi ihsaani ci yewenal fi kulli zamanin ci bépp jamono wa makaanin ak bépp barat barab way na min awkat yi nekk la ci nekk la ci gën ja mu taabaati nabi ñu topp sunnatu ñu topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi aqwaal yi ci wax yi wa afaal yi ci jëf yi is woo ngir loolu aynu taqwa mooy jëmmi ragal yàlla yàlla wax na ci alquran ne qaala allahu taala lan yanaala allahu luxumuha wala dimaauha mu ne yàlla mayeetut yàpp tabaski yi wala dimaauha di caageen deret yi walakin lu fi nekk yanaalu dana maye at taqwa ragal yàlla mu ne yàlla du ne dafay sàkku deret ji wala yàpp wi waaye gëm yàlla gi rekk la ci sàkku wax na ci ñi nga xam ne dañuy dem di aji màkka wax na ne fa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa su ngeen di dem màkka mu ne na ngeen yóbbulu ñu ne lan la ñu yóbbulu mu ne taqwa lañ war a yóbbulu takkwa googu ñuy wax nag ci loolu ci yóbbulu moom la ñuy wax tamit ci ci rendi rendi tabaski yi wa min ahami dalika bokk na ci liñ ko war a gën a ittewoo الاستنان نسنو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم نسنو سنة يونتبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحية تي عيد التبسكي mooy mooy mooy li ñu war a gën a ittewoo tey mooy ñu sunnawoo tey sunna tabaski fii idul udhiyati mooy sunna tabaski woowa moom allazi huwa moom azamul idayni mooy gën ci ñaari iid yi al mashru bu ñu waral fii zamani abina ci jamonoy baay suñu ibrahima ibrahima alxalil ga di sell moom mooy sunna yonent yàlla ibrahim mi nga xam ne moo ñëwoon ci doomam ismaila ne ko yaa bunayya inni ara fil manaami inni asbahuka fanzur maaza tara mu ne ko yaa abati ifal ma tumar sa tajiduni insha allahu min asabirina ba nga xamee ne yàlla waral na ci yonent yàlla ibrahima ngir ne ko mu mu rendi rendi doomam ba mu defee loolu ba nga xamee ne jël na doom ji dem muy ismail wax nañ ne ismail la ñii ne nañ isxaaq la waaye li gën a wér mooy ismail la ndax moom moo nekkoon ca màkk ba nga xamee ne loolu am na ba mu jël ko nag ba dem ba ca jëbal jëbal ji bëgg koo rey mu daal di jël paaka bi bëgg rendi paaka bi bañ paaka bi ne ko yow yaay xalil waaye jëlil ki nga xam ne mooy yàlla moo ma digal ne bu ma rey foofu nag ne ko yàlla daal di ko wax ne ko nag daal di ko jotee nag foofu fa daaw mu jot ko bi këp si ci am xaaf aljalili ki yàlla fa saarata mujj sunna ya albaqiyatan di sunna bu des ilaa yawmina haada ba ci suñu bés bii tey wa hiya afdalu moom li ci li gën ci moom mina ci tabaski mina sadaqati wala itqi ba tey bii sa tabaski moo gën saraxe ak goreel jaam wa qiila waxeef na bil bi wax nañ sax ne war na wa man taraka képp ku bàyyi na bàyyi na mu ko wa huwa aji te moom aji àttan la mu asima bàkkaar na képp koo xam ne mën na ko te defu ko mu ñu ne bàkkaar na wa tajibu dana war nag moom moom tabaski bi nësëri ci nisar su fekkee ne da ngaa nisar ne ren at mii danaa tabaski tabaski war na la wa bi taa yi nii mooy nga nga ràññeel mooy nga am gàtt ne gàtt bi bëgg naa ci tabaski boobu su boobaa tabaski dana ci war wa taa yenu dana gën a ràññeel isal tasamaha su fekkee ne warlu na ko moom nit ki bi lisaani ci ci làmminam bi niyati yi ci yéeneem inda shira yi fa jënd gi su fekkee ne da am am xaaf nga di ko jënd ci ba koy jënd nga daal di ne xar mii bëgg naa ko jënd tabaski ci su boobaa xar moomu tabaski war na ci waa alal maaruf ci lu ñu xam wala maamuru nag li nga xam ne moom lañ digal bi yaa moom alxorru mooy koo xam ne gor la mustatiw aji àttan la xayri xaajin duut ku aji ku nekk ca minan wala mustatiw ki nga xam ne nag moom moo àttan man laa man laa yaxtaaju mooy koo xam ne li samaniha ñeel njëgam ñeel ñeel njëgli fi amin ci at su fekkee ne loolu la ñu wax mooy ne koo xam ne àttan na joxe tabaski li des ci at mi yëpp su fekkee ne ci at mi lañ wax kon ñuy tabaski war bëriwut waaye su fekkee ne nag ci ashru zul xijja bii ñuy wax la ñuy wax kon ñaar fi fan rek moo des ci at mi amin ci at mi inda malikin loolu mooy tukkee na fa imam malik mooy imaam yi ngër mi walaaye tasallafu deefut lebal lebal lahaa moom tabaski moom imam malik wax na ne jarut ngay lepp waaye ala xilaafin loolu ute nañ ci am na ñoo xam ne nee nañ mën ngaa leb fi daalika ci loolu wa man indahu képp koo xam ne am na saw baani ñaari mbubu ahaduhuma kenn ci ñoom yëg fii doy na la baa jar baa laha saani jar na mu jaay benn bi tabaskee ko wa chartwa moom tabaski an yakuna bu mu nekkat minal xanami ci juri kër yi wa afdalu lu ci gën nag mina daani mooy xar ñu ne tabaski moom ci juri kër rek lañ ko war a def waaye nag bi ci gën nag bi ci gën mooy mooy ñi def ko ci xar xar zumal maasi wal mooy mooy béy zumal baqari mooy nag zumal ibili mooy gëléem soo mënta def soo amul xar nga nga def nga rey wala nag wala ibili waaye wax na nag nee na afdalu mu li ci gën mooy mooy nga def ko ci xar mooy nga xar xar ñuy wax nag nag mooy seminu boo xam ne bu duuf la wal lu kuuy wal aqranu bu bu béjjanoo afdalu moo gën min xayrihi lu dut moom wa aqallu la gën a néew maayusi la dana la dana la doy mina taani ci xar mooy xar boo xam ne li gën a néew ci xar boo xam ne mën nañ koo tabaskee mooy xar moo xam ne am na benn at ba dugg ci atam ñaareel am na ñoo xam ne wax nañ ne bu am juróom-ñetti weer am na ñu wax ne bu boo xam ne juróom-benn weer su fekkee ne nag bëy la walla nag walla gëlëm sa niyu moo ci war sëñ yu nag mooy boo xam su fekkee béy la mooy bay bu am benn at ba dugg ci atam ñaareel wala su fekkee ne nag la mooy nag bu am ñaari at ba dugg ci atam ñetteel su fekkee ne nag gilem la gilem goo xam ne am na juróom benn at loolu moo ci war wa nuhiya tereef na ani arjaa yi tereef nañu mooy boo boo xam ne dafa làggi mooy xar boo xam ne dafa làggi wala awraay mooy bu pat wal maridati wal mooy bu feebar wal ajfaay mooy bu làpp والمكسورة القرن موي بو خامني بجين بي دا فا دامو اذا كان فكر نيك نا يوت مي دي ناتش سو فكر دا فا دامو با بري دي ناتش بوبو تري نانكو والبشمه موي بو فر والمقطوعه الاذن موي بو خامني دانيو دامو دانيو داغ نوب بي وزن بي اك ген جي والسماع موي بو كوتوم موي بو لاب لاب باغا خامني يخ ياغي ген ونو هي تريف نان اني خرقاي موي بو خامني دانيو بن نوب بي والشرقاي موي بو خامني دانيو خوتي نوب بي والمقابلة موي بو خامني دانيو نجوف سي كانام والمدابرة موي بو خامني دانيو نجوف سي غناو موني لول ييب نا محمول على نفع الكمال موني لول دا فاي تري مات جي رك وايي كو ديم با سيس سي مون نكو ديف ووقتوا موم تبسكي في يوم العيد موي سي بس بو نيك بي من اول سي بس بو نيك بي الى يوم الى يومها الى يومها الثلاث موي موي موي با سي بسيب نيتل بي موي لي نخ موي بسيب تاي بي ييغا خامني نيكي تاي موي موي ديماج altine talata kon bés bu ñëk bi moy tay ñetti fan yoy moo julli ba'da salati iid yi gannaaw julli eid wa zabh imam ak rendi imam wa yéen bax dana dana dana dana war an yubrizha moy mu genné tabaskem ci julli jullikaay kay bi ila al musalla ci julleekaay kay fa in lam yafal su fekke defa ko fay jisaay ma man zabaha qablahu dana doy kep ko xamne rendi na ñëk ko xawlaani ñaari wax ñi ne nañ am tabaski ñi ne nañ amul tabaski wa aaxar waxtu zabki mooy mujjantali rendi ci tabaski gurubu shamsi ci soog jant bi fii yow fii yow mi saalis mooy ci béseb ñetteel bi waye tawalla dana dana dana dana méngoo zabha zabha rendeem saaxibuha boromam wa in kaana imratan mu ne ko képp ku am tabaski yow yaa ko war a rendi su fekkee ne mën ngaa rendi même su fekkee ne sax jigéen la wa in istanaaba su fekkee ne lottu nag tam uutal ku ko rendi boobu wa qaadirun te fekk moom mën na ko ajsaahu bon na wa biisata li mu def maa sanaa la mu def la mu def bon na mu ne su fekkee ne yow mën ngaa rendi sa bopp ba pare rendi woo li nga def doy na de waaye li nga def bon na baaxut fay ni ajasa su fekkee ne nag lott na wastinaaba tam utal wa yaxduru te muy teew wa yéen wi te muy yéene zëb zëb muxtaar bi nga xam ne moom lañ tànn su fekkee ne nag dafa dafa lottu te mu ut ku ko rendil mu ñu mu teew na teew ba pare te na mu yéene na yéene zabha zabhul muxtaar mooy renni bi nga xam ne moom lañ tànn ci sunna mooy baadal basmalati gannaaw bismillahi rahmaani rahim wastiqbaali qiblati nga jublu nga jublu qibla xatul xalqu mi mooy nga dagg ñaari prox yi wala wada jay ak ñaari lewdaaj yi waye daaw dana dana nga teg sikkiina paaka bi fii masbax yi fil masbax yi ci rendekaay bi waye mu te muy rombal ko mu ak rombal xataa xataa ba ba mu dagg alxarasata xoor ba loolu mooy rend bi nga xam ne moom lañ tànn ci sunna wa hada wa moom lañ tànn ci sunna wala yaaxusu deefut jàpp naay bu sheyun fi nazril amali soo fekkee ne nit daf laa ootu ci reyal la amul droit jël dara ci yàpp bi lu dul loo xam ne yow yaa ko may wala yajuzu bay wala wala yajuzu bayun sheyun daganut ñu jaay dara ci yàpp tabaski minha ci moom tabaski an laa yu aajira bu mu watanteet bu walaay baadira bu mu wattanteen amul droit nga naan ko jox naa jox naa la sama yàpp tamit yow jox ma sama yàpp loolu yëpp tere nañ ko ci tabaski waqat daxa moom sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam moom rendee na rendi na tabaski bi kab cheene ci ñaari xaaf am la xay nii mooy ñaari ñaari xaaf yoo xam ne yu rafet lañ ak aqra nay nii mooy ñaar ñu ñaari xaaf yu béjjënu yeen zuraan yi danañu xool fii sa waadin ci ñuul mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rendi na ñaari xaaf yoo xam ne yu rafet lañ yu aqranu aqranay aqranay ni ñu béjjanu mooy ñu am ay béjjan yenn zuraani dañuy xool fii sa waa ci ñuul mooy na li nekk lu nekk ci bët bi dafa ñuuloon wa yebrukaani dana goor fii sa waa ci ñuul li nekk ci biir bi tamit dafa ñuuloon wa yemsiyaani dana dox fii sa waa ci ñuul yi ne tànk yi tamit amoon na lu ñuul waaye loolu mooy xaaf mi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi tabaskee woon waaye du caageen nekk foog mu mel noonu waaye nag noonu la xar xar mu ñaari xar yi yonent bi tabaskee woon noonu la meloon fii sa waadin ci noonu zabaxahuma moom rendi na leen biye yi ci loxoom a sharifati ba ba di aji tedd wa qaala tam wax bismillaahi allahu akbar allahuma hada anni mu ne mu ngi ñaan allahuma hada anni lii mi ngi tukkee fa man an man lam yu dax yi ak képp koo xam ne tukkee wut min um tabaski min ummati ci sama xeet وقال عليه الصلاة والسلام وخنا مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم عزيموا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط يوم القيامة من نعن مقل سن تبسكي نحمو سن ورواي إن خمن مؤمن جال الصراط يوم بسبنج وأنه مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وخنا ما من عبد ديت بيب جام توجهوا بوب بوب جبلنا بوب جبلنا قبلتي توجهوا في بالأضحية تي قبلة تي تبسكي إلى القبلة جبل قبلة إلا كان نرى نكنا دمها درتم وفرسها بوبا وصوفها صوفسا حسنات دي دي ويو محضرات دي ينتول في في ميزان حسناته كما نلقى ما نلقى يوم القيامة وعنه ابن عباس ابن عباس وخنا مرفوع عندي حديث بو خامني يكتي نانكو بام دم تي محمد صلى الله عليه وسلم من ما من صدقه ديت بيب صدقه baada silati rahmi gannaaw jokk mbokk afdalu min iraqati dem mu buggan retour deret tey ci bés bi mu ne amul benn sarax boo xam ne gën na tey gën na tey tuur deret lu dul lu dul luy dagg mbokk wa fi xadisin wax na ci xadis yetawal yetajalla dana méngoo moolaana borom suñu mu ne yonent bi mu ne yàlla dana feeñ moolaana borom suñu fi yowmil iid ci bési iid li yazuurahu ngir ngeen ngir ngeen nemmeeku ko almuminuuna way gëm fa yu mu goreel ulufan ay junne mu minal mujrimiina ci way defkati ñaawteef yi mu ne bés bi yàlla dana feeñ yàlla amul barab waaye bés bii nii dana feeñ ngir nit ñi nemmeeku ko mu mu goreel ay junne ci ñi nga xam ne dañ daan def ñaawteef wal malaayikatu te malaaka yi danañ shuhudun danañ seede li yashadu ngir ñi seede azima afihi ngir màggaay ak jéggaleem ci bés bi anil abidi ci jaam yi wa sadaqatu wa sadaqatu sarax fii iidayni ci ñaari iid yi mooy iidi tabaski ak iidi korite afdalu min gayriha moo gën ci lu dul lu bi sabina darajatan ci juróom-ñaar fukki daraja wallaahu moom yàlla yu daayifu dana fulal li man yashaaw ku mu zabu wa zabu dana sopp nañ takbir ñi ñi màggal naan allahu akbar allahu akbar min zuhuri haadal yowm ci tusbaari إلى صبح رابي بتي تسبارك نينتيلي نينتيلي بس بي بعد كل فريدة بعد كل فريدة جناو بيب فرطة واللفظ بعد بر الله أكبر الله أكبر وتأخير الفطور موين يه خدوب بس بي تاني نين فرنيت يه خدوب نير لين خامن مونك تي كورجي لما رو ينجر لينك فكورجي أنه نكموم Euh, annahu yaadilu dana tolloog siyaama sittata alaafi sanatin mu ne bésëb tay bii ku ku ko oor mu ne dana tolloog juróom juróom-benn junney at ci koor gu gàtt gi rek te sopp nañ alxaslu mooy nga sangu wata tayibu mooy nga nga nga gëttu wata zeyinu mooy nga taarlu walaw fi xàq man laa yusalli même ci xàq ci xàq koo xam ne julliwut même jigéen boo xam ne dafa gis mbaax sopp nañ mu sangu gëttu dem ci julleekaay ba ولو fi xakki man laa yusalli wal jahru tañ tañ biral bi takbiri ci kàbbar mooy ñu ne allahu akbar allahu akbar illa an yajiye illa an yajiye al imam ba ba imam di ñëw aw yaqumu li salaati aw yaqumu li salaati wala ba muy taxawal julli ku man jaa képp koo xame ne dikkee nee na ci yoon fi tariqin ci yoon fa li yarje sopp nañ mu delloo mu de mu dëppee min tariqin uxra ci yoon beneen képp koo xam ne ñëwee nga benn yoon sopp nañ nga demee nga dëppee beneen yoon ngir nga sarax miskin yi nekk ci yoon bi wala nga sarax miskin yi nekk ci yoon bale wala nga feeñal màggaay yàlla ci yoon bi ak ci yoon bale loli yëpp sopp nañ ko ci bés bi wattaqullaa ngeen ragal yàlla yàlla moom mi nga xam ne mooy kan mooy lazi tasaaluna mooy ki nga xam ne da ngeen lajante bi ci wal arxaama ak mbokk gi inna allah naka yàlla kaana aleykum raqiba mu ne ngeen ragal yàlla te ngeen yàlla mi nga xam ne ci moom ngeen di jox ma ngir yàlla sarax ma ngir may ma ngir mu ne yàlla moom moomu noonu ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ragal ko ak ngeen ànd ngeen sopp ngeen dëgëral mbokk wala arxaama ci sopp nañ maa rafetal ak mbokk inna allaha kaana aleykum raqiba yàlla mu ngi foglu lépp waskurullaa tudd leen yàlla kasiiran tudd gu bëri wal taalamu wal ta laallakum tuf laallakum tuflixuun laallakum boo yéen tuflixuun ndax ngeen texe wa anfiqu dund leen fii sabilillaahi ci yoon yàlla waalamu xam leen annama indakum la la nekk fa yéen yéen fa du dana jeex wa maa indallaahi la nekk fa yàlla baaqin aji des la waraaw te ngeen sàmm asalaata julli fi jamaatin ci njum ci mbooloo bi tahaarati ci laab wa faalu te ngeen jëf xayra la xayra yiw laallakum tuflixuun allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim allahuma salli ala seydina muhammadin alfatix li ma uliq walxaatimi li ma sabaq naasiri alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومختاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مو كونتان سي تروب جوخ ني ديغال من لون نك اك اويفام رك لا من يالنا يالا غودال فرام يا ربي امين يا ربي مايكو وير يا ربي غناو لولو غناو لولو mi ne ñuy kontaan trop ci mbir mii mi ne sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mi ne moo ko jëloon tekku ko ci loxol Cheikh Mouhamadoul Macky Ibrahima Niass mu jël ñu jël doomam jii nii Cheikh Mouhamadoul Maay Niass jiital ko mu nekk imaamu ratib bi mu nekk xale bu baax xale bu yaru xale boo xam ne am nañ yaakaar ci moom ñu ne parce que bu rek am na ta te am na ko mu ne ñu ngi gërëm Cheikh Mamadou Makki ak ak woyofam parce que mbir mii bañ ko ko waxee moom moo ci njëkk kontaan mu ne waaye dana ko dem leen ci xalifa bi rek ngeen jël ndigal parce que ñun ñëpp parce que ñun ñëpp bi suñu kilifa nit ki dafa am kilifa mais parce que looloo tax ñu dem si moom mu may ñu ndigal ñu mën a jullee fii si jumaa ji mu ne mi ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp kontaan na trop mu ne mu ne bañ demee ba nga xam ne koñ bi am na jumaa ba ñu ñu dem ba jullee fi tey ji mais loolu amna na yokkateku si saayir ak si baatin yokkute googu nag yenn na ko yàlla gën a yokk yaara bi min yaara bi koñ bi koñ bi dëgg dëgg ay taalibe baay lañ ñu baax lañ ñu bëgg baay lañ mi ne parce que gis na ko ci ñoom muy mag muy xale muy góor muy jigéen mi ne jox nañ ko cër boo xam ne mi ne moom eewu ko sax waaye Cheikh Ibrahima Niass rek lañ koy xoole mu ne Cheikh Serigne Baye Cheikh Serigne Baye Niass mi waajuram moo tax Cheikh Serigne Baye Niass moom tamit lu mu am Cheikh Ibrahima Niass ko moom kon nag kon nag am na amuñ dara lu wax lu bëri ñu ngi ndokkeel ñëpp daal di ñaan yàlla koñ bii yal fi yàlla indi déggoo yaara bi yal fi yàlla indi juboo yaara xéewal yal na fi yàlla indi xéewal yaa rabbi yal na fi yàlla def barke yaa rabbi mag yàlla guddal seen fan mag yàlla yàlla guddal seen fan yaa ñu mën ñoo tett ba ca kanam xale yi itam yàlla barkeel leen xale yi itam yàlla barkeel leen ku ci jàng yàlla may la xam-xam ku ci ut xaalis yal na la yàlla may xaalis yaa rabbi bépp métier boo xam ne daal bépp métier boo xam ne daal ñi danga koy ut ci koñ bi yal la ko yàlla yombalal yaa rabbi te may la ko te def si barke yaar bi koñ bii lépp lu baax ci koñ lépp lu baax ci koñ yan nañu ko yàlla defal ci koñ bii yaara bi lépp lu bon ci koñ yàlla buñ ko gis yaara bi lépp lu fi nekk yan na ko fi yàlla jëlee bu fi nekkee si lu bon yan na ko fi yàlla jëlee yaara bi yan na fi yàlla maye jàmm yaara bi maye fi naataange maye fi tawféex may fi yokkatiku may fi bëggeeli Mawlaana Cheikh Cheikh al Islam Al Ibrahima Niass may ñu fi barke yara bi may ñu fi barkeem may ñu fi barkeem may ñu fi barkeem yara mi ne kontaan nañ trop jërëjëf mi ne mi ngi ànd ak doomam Cheikh Mamadou Tayib di Cheikh sa di sërëb Serigne Cheikh Mbaye Niass mu ne dana ñun nag fi ne amuñ ngànt kam koñ bi daal dañuy julli ñun ñëpp fii lañ jëm ñoom loo tax ñu ñëw fekk fi suñu doom mu ne mu nekk Cheikh Mouhamadou Mahi heure bu ne mu ne mu ngi koy woo téléphone di ko diisoo te loolu yëpp mënoon na ko see bañ a fekk waaye yaroo ak teggin rek jàppee comme baayam rek loolu rek la yan na yàlla guddal fanam yaara bi yan na ko yàlla dëgëral may ko wér yaara bi may ko taw féex yàlla suturaal ko yaa rabbi suturaal ñun ñëpp nag bépp soxla bu fi nit indi yan na ko yàlla faj yaa rabbi képp ku fi indi feebar yan na ko yàlla faj yaa rabbi képp ku fi indi ay bor yan na yan na ko yàlla saafara yaa rabbi ci barke Mawlana Cheikh Al Islam Ala Ibrahima Niass yàlla na yàlla may jàmm yaa rabbi may yëkkatiku su suturaal ñu saayir ak si baatin yaa rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله الله بكرة وأصيلا ولله الحمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكل شيء yéenay liggéey fay du baay bi si ji baraham Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi ci ci barxama leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV